ñoom plan d'ajustement structurel la ñu taxawal loolu nag dellu gannaaw la jamonoy Abdou Diouf lem bi amee woon yokk nañ électricité bi day tàmbali yeneen njëg daañu yokku daañu nationaliser daañu privatiser ay société nationale dana am yeneen mesures yu ci topp waaw mais li may bëgg laajte mooy boo demee ba nekk ci jafe-jafe am ñoo xam ne ñu ngi yàq alalu askan wi am ñoo xam ne ñu ngi leen di jox ay kees ñu koy lekk am ñoo xam ne ñu ngi sàcc waaw boo doo dem ci ñooñu jële fa alal bi waaye da ñëw ci ci poosu askan wi nga xam ne amatuñu sax poos ay wéccitat yi ne waaye ku yor wéccit bàyyi koog wéccitam nit ku yore wéccit ci poosam nga ñëw bëgg ko foqati nous estimons ko yokk bi dañ yokk électricité bi dañ ko war a dellu gannaaw ñaareel bi ma war a fi ma bëgg daaneele mooy jàpp bi ñu jàpp ñoom Guy Marius Sagna bu dañ jàpp ni c'est c'est une et de démobiliser les troupes dañu bëgg bu ñu leen jàppee nit ñi ni ah affaire bi kat jaru ko jaru soxlawul ngay génn di xeex xoola ñi jàpp dara fekku leen ci moo tax xeex bi dañ ko war a dëgëral xam ni xeex pour Guy Marius Sagna génn loolu mooy tax xeex bi jëm kanam nañu mobiliser doon benn wasalaam maa ngi leen di leen gërëm